activités yi gën a def mooy may ak sàmm donc moo tax ñu ñaan ne léegi daal comme amoon na fii xëy na nag doxe euh, doxee mu waroon doxee bu njëkk moom nga doxee moom nga doxewul ba ñoom ñu ñu ñu tëj ko yóbbu ñu Kaolack mais dañuy ñaan daal vraiment ñu xool aussi euh, ñu ubbiwaat ko mais bu ñu ko war a ubbiwaat aussi ñoom it acteurs yi ñoom it nañ ci jouer pleinement seen rôle ndax ubbi banque rek bu benn surtout boo xam ne moom kenn du fa dem amul njëriñ moo tax nag yaakaar naa tey daal bu ñu ñaanee nag dañ ko ubbi dañ gën aussi gunge leen gunge leen mooy gën a gën a conscientiser population bi gën a leen sensibiliser ci njëriñu euh, ci njëriñu banque bi xam nag vraiment tey am kontaan lool taxaw fii ci waxtaan ak yéen di remercier nag médiateur ndax xam nañ ne solos médiateur ndax boo xoolee ci jamono njëkk ña jafe-jafe bu am lu ñu def ci pénc ba koy waxtaanee bala ngay dem ci tribunal dañuy waxtaan ci pénc bu tës ñu doo ko yóbbu tribunal léegi nag lu lu yëngu rek ñoo leen porte plainte kon nag yaakaar naa fekkee am na médiateur boo xam ne moom loolu mooy liggéeyam justice financier boo xam ne loolu moom la fi taxawal ci taw waaw donc ñun euh, dañ ñëwoon avec euh, la présidence du gouverneur du koy la compagnie nationale d'assurance agricole man médiateur des assurances euh, Nous avons du Sénégal médiateurs au niveau de l'Observatoire de la qualité du service financiers. Nous avons fait une mission bu entre CNAS OGSF et les médiateurs pour nous. nous wax parce que nous euh, avons créé en 2009 pour un petit euh, service population populations. donc pour wax population nag nga xam ni donc gouvernement nga jàppale parce que moom moo indi population yi fii yëpp loolu moo waral comme nit ñi xamuñu bu baax assurance agricole bi mais surtout xamuñu OQSF encore moins xamuñu médiateur yi ñu ñëwoon ñoom waxtaan ak pour wax leen dispositif yi nga état du Sénégal moo ko créé pour nous jàppale leen lu mu leen di un assurance agricole bi dina tax suba ay problème

ci njëkk ak teraanga te doo fay dërëm c'est gratuit et dina assurance bobu rek du assurance agricole rek mais assurance yëpp la donc médiation assurance yëpp lay toppatoo assurance agricole mën nañu wax ni sax ñoom mosuñoo am dossier ci ñom parce que ñom lepp lu ñu waxante ak euh, nit ñi ñu ngi koy toppatoo lu mu waree parce que état aussi mu ngi leen di surveiller ci def doore di si def xelam ak yëppam. waaw société assurance bi li waral nguur gi créé ko mooy du dara lu dul jàppale baykat sàmmkat ak nappkat. donc ñoom ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci secteur primaire boobu ñoom la fi nguur gi tegal société bi moo xam ngay bay mbayum dër mi wala mbayum nawet bi société bi am na ay risques yu bari yum la mën a jëlal muy sécheresse inondation attaque d'animaux sauvages ah ak yëpp yàqu-yàqu boo xam ne day jógee ci feebar gi jëm ci jur gi gàncax gi waaye yemuñ ci loolu am nañ tamit ay produits yoo xam ne yu am solo la pour ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllum élevage bi ñooñu dinañ leen aar ba nga xam ne seen jur bu deewee assurance mun na leen jox ndàmpaay boo xam ne dina leen permettre ñu mën a dellu ci seen suñ mbokk jigéen ñi ne ci transformation céréale locale ak ñi nga xam ne mooy jigéen ñiy yëngatu ci wàllum yarum ginaar ñooñu ñëpp am nañ ay produits assurance yu leen taxawal ngir jàppale leen ngir gën a ñoŋal ak gën a jëmal kanam mbay mi ak càmm